salaamaaleykum mbokki ñuy topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa waay xam sa waay nag ki leen koy defal mooy Mame Fatou Kébé tey bëgg a xam tey seen waay tey seen waay mooy Serigne Bathie Diop Serigne Bathie di jànkatu xasida kenn dootu ko ci présenté ci ñu war sekk ak moom ay waxtaan yu yaatu waaye tamit bala ñu dugg ci waxtaan yooyu tamit dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo ak askan yu koy seetaan ñu soog a dugg ci waxtaan bi Serigne Bathie aousu wal du kammil xaq di wa ilmi wa sax yi war faxil yowma kullaha yaa mooy barki sewul xaddim bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayidina muhammad alayhi salaatu ngi sant sëñ Tuubaa sewul xaddim bu baax euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom guddal aw fanam lool te may ko ak wér. ba li mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko def ni mu ko bëggee te ànd koog taalibe yëpp barke Sewul Xaddim euh, di nuyu bu baax sunu bunt di sëriñ Cheikh Aliou Mbacke euh, di ko ñaanal moom tamit li mu yéenee liggéeyal maam ju tedd ja lépp sunu borom defal ko ci lu kawe njortam te mu ànd koog taalibe yëpp di nuyu mbooleem euh, waa 24 actu yëpp ak mbooleem ñi ngi suivre émission yi ñu ngi leen di ziare bu baax di ziare taalibe sëñ Tuubaa yi ñu seetaan yëpp nag. di nuyu ñëpp jërë ngeen jëf. ngeen dégg ko Serigne Bàcci Diop ci nuyoo bu am solo boobee ginnaaw jotaay bi tamit dañ ko baaxoo di ko ubbee ak ak i xasida ñu daal di bëgg nga daal ñu koy eh, yëkkatil xasida yi ñu soog a. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala يا ربي بالمسافل مختار من مداري شفيع أمته في البدو والحضار يا ربي بالمسافل مختار من مداري شفيع أمته في البات والعذار عليه صل بتسليم بلا حداد في الآل وصحب واحسبنا من الضرار حلم أحمد المصطفى حما يجر لهم سوى العبادة واسهم من الشرار واصرف لخير موس سيطان في أبد ولتافي كل من يسوء من البصر ولتسرف داعا مرضى الجميع بي واصرف لهم مجيبات الأمن والبصر واجعل قلوب ساوي الإسلام في أمان ولتكفهم كل ما يفدي إلى الخرار وسلد بد بتسليم عليه بمن لو انتموا ولتجود بساف والضرار subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin saa ngeen dégg ko noonu sëriñ ci Diop ci xasida yi am solo yi nga xam se ne daan na koy uve jotaay bi waaye sëñ Bàcc tamit bëgg nañoo xam boo ñu doon wax sëñ Bàcc Diop kan mooy sëñ Bàcc waaw jërëjëf soxna Faati sëñ Bàcc de euh, taalibe sëñ Tuubaa hmm, di jàng këtub xasida juddoo fii Tuubaa sunu lépp dara génnul Touba fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ jàng fi lañ jëfe lépp yàlla dogal it euh, sunu ñaari waajur it euh, ci dëkk bi lañ lañ lañu mus a nekk ndaka jekk euh, fi ñu jàng alxuraan it mooy Daaru Xuddoos ku ñuy wax sëñ Basiiru Lo doomi sëñ Sëru Lo Sànn moom ma jàngal alxuraan moo nekkoon ilimaani Daaru Xuddoos jàkkee Daaru Xuddoos si moo ma jàngal alxuraan foofu laa yoroo ba yàlla dogal ma jóge fa ne ci xasida yi sëñ Bàcci daal taalibe sëñ Tuubaa boo xam ne kuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi la. dégg ngeen ko noonu sëñ Bàcci taalibe sëñ Tuubaa la léppam fii la ko defee ci Tuubaa waaye tamit bëgg nañoo xam tamit sëñ Bàcci kañ la dugg ci njàngum xasida mi. njàngum xasida moom xam naa ne pour wax la dëgg-dëgg eh, at mi dana xaw a jafe ndax mën naa ne bi may nekk ci daara ji di jàng alxuraan falaa doore sama njàngum xasida ndax dañ fa amoon benn kuréel boo xam ni kuréelu kuréelu mawlud la woon yàlla dogal ku ñuy wax Sërif Caam moo ko jiite woon ne ak ku wax sëñ Mbàkke Jang dañ daan def nag buñ buñ kuréelee euh, xasida Mafaatihul Jinaan lañ daan jàng buñ jàngee ñeenti ñeenti xasida ak fataha ak malaktu ak fusti bu noppee ma jàng muwaahibu ci eeru sëñ Abdoulaye Seck bu ma noppee sëñ sëñ Sërif Caam moom ma lay wax àggale xaj na dañoo gimbi rek ñun ne ci xasida yi yàlla loolu yàlla dogal moo tax man la xam dëgg-dëggi eh, at mi at mi ma ko tàmbalee dana jafe waaye nag bu dee at mi ma njëkk a fanaanee jàng moom 92 la 92 waaw ci eh, coonuk sëñ jan xariloo ñu ci boori Kaffrine foofu laa foofu laa njëkk a fanaane ak guddi yàlla dogal na yit eh, ba ma fay fanaan booba metti woon na ci man lool ndax xam nga nit bu bëggee dara yàlla dogal mu tàmbale ci gis dara rek yéen a jëm cay doxee ak ak ak ak bëgg ga day waral yu bëree bëri. boo boobu fekk na sax ah, tàmbaleegu ma ànd ak sëñ xaarim sëñ xaarim bi may dem ci moom boo fekk na ma tàmbale am njàng lu yàgg. ndax ah, sëñ xaarim ànd na ma moom lu yàgg loo xam ni génn ma dëkk bi mosaan daan jàng dëkk bi rek eh, laa daan dem fanaan bu ma xëyee dem ndax boobu maa ngi ji di jàng alxuraan ma eh, bi ma jàngee nag alxuraan ma noppi jaar naa ci menuisier it nag bi ma bi sama turandoo ki ma tuddee yàlla dafa dogaloon mu nekkoon menuisier Euh, mu dugal ma ci euh, menuisier waaye yàgguma fa nag ginnaaw bi ma nekk bi ma nekkee ci menuisier bi nag boole ko ak njàng mi jamono yooyu ci la ma sëñ Xaadim woo ne ma kat dama lay dégg te xam naa ne ku la jàppale da nga dem ma bëggoon ngay ñëw ci njàng mi loolu moo moo dem ba yàq xañ sama sama sama sama sama liggéey waaye euh, sëñ xaari moom bi ne ànd boo fekk na ma tàmbali guddul waaw sëñ jërëjëf sëñ bàcci ngeen dégg ko noonu waaye tamit sëñ na ñoo xam tamit ci ñaata at nga topp sëñ xaadim Gueye sëñ xaadim xam naa ni Hmm, yaakaar naa war naa mën fukki at ak fukki at ak ñaar daal wala fukki at ak ñett ndax quatre-vingt-quinze laa laa tàmbali ànd ak moom ci lim bi ma lay wax nii ndax jiitu sax quatre-vingt-quinze may ànd waaye bi nga xamee ne bàyyi naa lépp di ànd ak moom eh, mi ngi tàmbalee quatre-vingt-quinze ba 2006 jàpp 2007 mu yaakaar naa fukki at ak benn wala fukki at ak ñaar daal war na ko war na ko war ko mat waaw ba tey sëñ bàcc ku ko wax tamit ci njàng bi tamit nga ko xam waaye bëgg nañoo xam tamit ndax sëñ bàcc dafa yam ci njàng bi rek wala mi ngi koy boole ak yeneen i commerce xam nga liggéey moom daa muntu ñàkk ci nit bu fekkee ni bëggul ko ko yàpp te bëgg naa sàmm diineem war naa war naa war naa dugal loxoom ci fu bare bare xañ na njàng mi mooy suñ métier mooy mooy suñ suñ moom lañ ñëpp xame waaye nag ñëkkun ñëkkun nag yeneen yeneen yeneen barab yoo xam ne ñu ngi ci dugal suñu loxo ndax euh, ku ne xam ne ni am njàng moom période rek la ndax gis nga lii xew nii tey nga xam ne lu mat de mois euh, le 14 mars ba tey jii maanaam génnuñu dem fenn kon jàpp naa ni bu fekkoon dañoo sukkandiku rek ci mi kon mën naa xaw a doy waar lool waaye nag fekk na yàlla dogal na fekk na ñu dugal ci suñu loxo ci yeneen barab yoo xam ni lu ñuy génneel dara la ndaxit nit li may faral di wax rek nit buy liggéey. du wërta yàq xaj na li ñuy jëlee ci njàng mi eh, ak su néew yàlla dogal na yàqunu ko ñu ngi ñu ñu ngi koy dugal ci yeneen barab yoo xam ne tey bu ñu jàngut it loolu dañu mën a génne loo xam ne danañ ci mën a suturloo. waaw jërëjëf ngeen dégg ko noonu Serigne Bathie moom la ñuy àndal ci jataay bi ngeen dégg ko ni muy àddu noonu di tontu ci question yi xam si ne moom lañ koy laaj waaye Serigne Bathie tamit bëgg nañoo xam tamit eh, ni mu ànd ak Serigne Khadim Gueye eh, ba tey mi ji mu beru doon jànkat est-ce que tamit am na ñoo xam seen tamit ànd nañu moom tey ba beru noonu. am na ci ñu bari ñoo xam ni ànd nañoo ak man ba ber am na ñoo xam ne tey jii bari nañ bari nañ ànd ak ñu ànd ak sëñ sëñ xaadim sax ñoo xam ni man mii maa leen booleeg sëñ xaadim ndax man mii lañ daan àndal mën naa cee tudd tur yu baree bari euh, ñoo xam ni man mii maa daan dem ci sëñ xaadim jàpp sama jàpp seen loxo yóbbaale leen waaw bari na daal ñoo xam ni eh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ànd ma ñoo xam ay jànq lañ ku leen jox guddi tey ñu fanaane ko suñu wàcc yi tamit eh, bëgg na maa xam waaye tamit eh, comme que nee na tamit avant ngay fanaani guddi bi nga njëkkee fanaani guddi daal lan la def ci yow rek xam nga nit moom bu fekkee ni li sànq bu fekkee ni daa bëgg dara nga xam ni lii moom moom moom la opté nga xam ni bëggam yëpp mm, ak yëngoom ak ak dalam yëpp mbir mbir mii la yàlla dogal mu dem ba tàmbali di ci gis dara loolu mbégte mbégte la loolu waral na sax jour boobu Euh, bi may génn war war a dem fanaani ci ba war a jëm ci baas bi teel teel na maa génn ndax bi may génn boobu daanaka yaakaar naa ay une heure xawma laa génn di jàng ba bët set xam nga loolu xam nga loolu loolu loolu ak bëgg rek moo ko waaye xam nga jàng ni mu méttee nga bëgg tàmbali une heure jëmale 7 heures wala mais bëgg gi nga koy bëgg nga xam ni lii kat maanaam lii nga doon ñaan yàlla mooy man kat eh, ndax bi ma daan ànd ak sëñ Xaadim di dem muy fanaan ay guddi fii dama ñaan yàlla naan ah man yàlla naa dem ba bay bay bay fanaan ay guddi kon loolu bu amee ak ak ak fa ma dëkk ba ma ko ba ma ko tàmbalee nga xam ni euh, dëkk ba borom doomi sëñ Mourou Moussa la euh, mu doon dëkk bu barkeel loolu yooyu yëpp da da damaa sóor ci mbégte moo xam ni coon la coon coon coon gu sëñ daan xariloo mi ngi fii ci yoonu Kaffrine wi rek fi la nekk foofu laa njëkk faa jàng waaye mbégte daal mbégte daal wax dëgg yàlla euh, la moom lañ moom lañ ci amoon moo waral it ñu li ma la léegi ñu ñu teel a génn ngir yàkkamtee génn rek maanaam ba ba wane suñu mbégte waaw ndax nit moom euh, bu fekkee ni yàlla dafa dogal nga yëngu ci biir ba tàmbali dem di ci gis yenn signe rek mu leen leen lii kat xaj na luy continuer lay doon loolu mbégte da nga ci am ak bànneex. ba tey sëñ Bàcci bëgg nañoo xam tamit njàng ndax nit ñi dañ ne am ñu ne tamit même tamit njàng tamit dafa simple ñu bëgg a xam yéen jàngkat yi ba xam njàng bi métti na wala déet. soxna Fatou njàng métti na jàng jàng li ci li ci li ci laxasu dafa bari xam nga damay faral di wax ni jàng moom toog téeméer ko di jàng moo ci mujj mooy li ci mujj mooy dernier bi yi ci ne daa bari waaw ndax xam nga li li nga xam ni maanaa maanaa ci ci xel rek nga boo ko doon xalaat da nga naan lii wërtamaa nekk doomu aadama nga toog lu tolloog junni nit wër la nga ne ci biir maanaa di di jàng di di yëkkati lu ne nga koy def ñëpp di la xool loolu rek danger la waaye nag Sëñ waa moom euh, dafa fàggul dafa fàggul lépp te it euh, bu fekkoon ci xalaat doomu aadama li nekk da nga naan lii wërtamaa nekk loolu loolu rek ma la jéemoon dama naan la lu metti la waxuntuma nag ngay li ngay jànkoon li ngay jànkoon de coono yeeg oto yeeg ñàkk nelaw yeeg coow yeeg nit ñeeg ndax yenn saa yi nga dëkk eh, ñu naan nag guddee nga ak waxantu woon heure bi ak waaw nga jàng ba xëy ñi waaw ñiy jëm feeñ jëm ndax xam nga eh, programme boo gis boo gis ab jàngkat di ko jàng rek dañ ko jëlee ci ab jàngkat jox la ko ña nga xam ne nag ñoo soppoon ka fa newoon man lañ laa bañ a jublu du ko foofu loo loo fa may def ñoom ñoom ñoom du ah, coow am waaw ñii dañuy jaar fee ñu jaar fee mm-hmm. kon yi ci laxasu bari na euh, bu bu du dara it maanaam maanaam jëmmi njàng rek toog di jàng mm-hmm. lu toll ak 3 nga toog di ko jàng wala 4 heures temps ndax yenn saa yi temps bi day day day day day yéeg ko wàcc mm-hmm. yenn saa yi mu leer 6 heures am am moment yoo xam ne 6 heures lay leer comme jamono ji ñu toll nii mais bu ñu doxee ba ci kanam tuuti ay 7 heures da ngay jàng ba 7 wala 7 dee mu doog leer xam na ngay jàng ay ñetti waxtu. day metti. da ngay jàng ba sonn. boo boo ko bëggee tegle nag boo xëyee fii bëgg a dem fee xëy bëgg a dem fee xam nga loolu comme ça ni ngeen di fanaanee eh, jàngkat bi mën na fanaanee jàng ci eh, baas ba asamaan set léeg-léeg mu dañante koo xam se ne da ko jox programme mu bëccëg loolu boobaa naka ngeen koy dundee est ce que du feeñ ci seen voie bi mën na sax ndax fi ne nii jàngkat boo gis fi ne géej jàng baaxul ci moom maanaam boo noppaloo rek mu feeñ bala nga bala ngaa am moom sa dëgg-dëgg nga sonn hmm. waaw loolu loolu moom moo moo moo ñàkk géej jàng moo moo ñuy moo ñuy moo ñu sonal waaye tegale gi moom sonaluñu dañ koy def dañ koy def doo duñ def dara dañ koy def am na ñoo xam nag xam nga nit ñi nag bokkuñu yem am ñoo xam fi ne buñ fanaani jàng te nelawuñ seen baat am ñoo xam nag mën nañoo fanaani jàng yendoo ko te du leen def dara waaye nit ñi ñoo bokkul daal am na ñoo xam tey jii buñ buñ fanaani jàng fii donte 30 000 la buñ ko nelawee rek baax na waaye buñ ko nelawut boo leen bëgg a jàngaloo donte daan jàngit waaye da da da danañ ci sonn waaye dañ koy dañ koy def nag day am day am nga xam yenn saa yi dangay dem da ngay dem ne ci tournée wara a am jàngi bëccëg wala sa wëlëre boo xam ne xewle na dara mënoo ñàkk bañ a wàññi ko ñëw faaw nga ñëw maanaam jàng jàngal ko wala nga ñëw ba gis la nga wàññi ko dem yooyu day am waaye nag lu ñu tàmm la xam nga nit moom bu tàmmee dara rek ne ci loolu mën na mën naa bañ a def benn effet ci moom xam nga mbir moo gis maanaa des koy tër bi yow gis nga ñun bi na ànd ak suñu xaadim yemuñu woon sax ci maanaa njàng mi nii rek bu bu jànguwul sax ñu ngi këram bu nu dem nii ndax man lu ci bari man maag maag maag sëñ xaayum kewe lu ci bari ñoo daan ànd ak sëñ xaayum ci otom ñaare fu fu fu mosaan dal ñooy bokk fu nekk. waaw yemuñu woon ci am njàng rek ñoo ko daan lemal ay yéeram bu mosaan sangu ñooy ñoo ñoo ñoo ko génneel ñoo ko génneel eh, njàmpe gi ak saab bi mu ñoo koy bës lépp dañ ko def xamul tax ñu ko doon def mooy. du caagee ni dara waaye nit bu fekkee ni dafa dafa dafa bëgg mbir da koo bëgg faaw nga tër bi yow ndax li li li ñaan bale bala ne wur wur xaw ma ne nox na xaw waaw mbir moom bala nga cee mari jariñu dëgg-dëgg faawu nga sonn ci toujours moom laay wax xale yi nga xam ni moom lañuy ànd ak man dama leen di wax ni leen euh, euh, nit bu bëggee dara da da ci da ci da ci da da ci def sacrifice maanaam day sacrifice jëmmam du ñu du ni rek kii kat xañ na sama nawle la maanaa day lii lii dañ ko def ak nangam daal xewi na lii daal amatul nangam nangam déedéet mooy li may wax toujours soxna yi rek xam nga day dégg sox yenn saa yi bu ñu waxee ni eh, nañ mel ni soxna jaara jigéen ñi ne doy soxna jaara ñu mel ni Mamour Jaara amatu fi xam nga yooyu yooyu soxna dañ soxna yi dañ koy wax. waaw noo xam nga loolu loolu loolu maana baaxut loolu waruñu ko sax a jàpp xam nga lu tax mooy gis nga yàlla yàlla naxul kenn. te suñ borom mi doon maye ci jamono soxna jaar xam moo fa jamono soxna jaar moo moo fa newoon di maye yàlla moom jógu fi ba tey mi ngi fi. te tey jii même ki nga nekkal tey jii bu fekkoon sax moom day day day ko doyaarit yow la nga war a sàkku ci moom maanaam jiital yàlla ci sa kanam xam ni xam ni suñ borom mi maye moom jógu fi te du nax kenn du jaawale nit jëf ak nit ak jëf waaye da ngay wax da eh, wax ñu ni. Euh, ndax lu ku mel ni Mamour Mamour Anta Touré amati na xam nga lool loolu day day day day <laughs> noo faralu ba leen sax waaye waaye euh, comme ni ma la bëgg a leeral rek maanaam dafa dafa am loo xam ni maanaam bu fekkee da ko bëgg di ko wut maanaam bu ci bu ci xool dara tegal yàlla ci sa kanam ndax yàlla yàlla moom li ñu wax ni doomu aadama mu nekk suñu borom euh, moo la gën a jege sa buumi xol li nga fas ci sa xol xam nga fi nga suñu borom xoolul ay ay colak ay ay ay otoog ay kër déet xool loolu suñ borom li muy li muy xool rek mooy mooy mooy ab xol ndax am na benn góor yàlla boo xam ni dafa suñu borom daf ko musa musa musa wax yu wax ak moom ni ko euh, daa bëgg nga nga nga dem nga nga indil ma ki ki gën a yées ci àdduna maanaam ki nga xam ni daal moom moom moo gën a bon daal nee na mu mu mu mu jaaxle nag di wër ci àll bi di xool nee na dem ba gis ab xaj boo xam ne dafa dee mu dem ba di ko jël mu daan ah naa ko bàyyi ndax wóoru daal daal di dem ba yàgg mu daan ah naa naa ko jël rek ndax kii daal moom xel mi di insister daal ba yàgg mu mu wàññi ko waat xala xelam xalaat daal mu wàññi ko ba mu ñetti yoon mu daal di dem bi mu demee nag jaaxal loolu daal di tëdd suñu borom daal koy daal koy daal di koy ilham wax ak moom ni ko euh, xaj boobee nga jàppoon yaa ko gën ba tax nga bëggoon ko jàpp bis boo jàppoon yaa ko gën ba indi ko dinaa la rekk ci pays pays pays si pays yëpp xam kon Euh, looy boo boo ci dee boo ci dee jàngat dangay xam ne suñu borom maanaa xool doomu aadama moom waaw moom lay fay li nga xam ne moom mooy sa pas-pas nga jàpp ko yéene ko mm-hmm. suñu boom loolu rek lay gis mm-hmm. bul xool ni kii kat sama nawle la wala nangam nangam yow yaa bëgg lu baax mm-hmm. bëgg dara di ko wut kon yow yaa ko war a sàkku moo tax toujours rek man dama leen di yee ci loolu ndax man euh, fi ma jaar ci ci aw Eh, du ma ni du ma ni du ma ni ñu bari jariñu fa waaye sonn naa ci aw lool. macha allah ngeen dégg noonu Serigne Bathie Diop la ngeen dégg nu muy daal di eh, eh, àddoo ci question yi ba tey waaye tamit Serigne Bathie tamit bëgg nañoo xam tamit mbas mi nga xam si ne tamit moo fi nekk ci Covid 19 bi kenn du wax tamit te boolewu leen ko ci ah, naka nga ko daal di dundee. loolu de moom ni ñuy wax rek ndax man def naa sax ay images yu bari ba envoyé ko ci mel ni Touba TV ak ay ay ay ay sites yu bari bari mm-hmm. ndax ñun ay porteurs de vocal lañ. maanaam dangay wax nit ñi di la dégg donte fu téeméer nii la bëgg nañ ma xëy bu ma waxee leen ma dégg mm-hmm. loolu laa gis moo tax def naa ci ay ay ay waxtaan yu bare bari lii nag day loo xam ni lu lu yàlla lu yàlla wàcce la ci jamono nga xam ni dañuy borom xam-xam yi ak ak nit yàlla yi dañuy wax ni téeméer at yu ne suñu borom dana wàcce balaa boo xam ni day daj àdduna kap te ku ne xam ne lii de moom daa daj àdduna waaw moo tax gisu gisuñu ci nag lu lu lu weesu ñaan ndax suñu borom bu fekkee ni wàcce na wàcce na wàcce na euh, balaa lay la la la jiitu ñu war ko def rek mooy ñaan ko ñaan mu teg ndax moom rek moo ko fi mën a jële ndax dafa am benn nitu yàlla koo xam ne da doon da wax ak suñu borom ni ko euh, waa lu tax bu la benn doomu aadama tooñee rek maanaam nga nga généraliser maanaam maanaam teg teg aw teg teg mbugal ci ñëpp mu ni ko mu ni ko bu guddee nga dem tëdd sa kër te déglu ma ba suba mu dem tëdd bi mu tëddee. am neenaaw ba yàgg ay ay ay sànq lañ ay sànq lañ ko yu bari waaw benn sànq lañ màtt ko ci mu daal mu daal di dóor daal di faxas xam nga kon rey na yu bari waaw bi mu bi mu xëyee suñ suñ mu suñ borom ne ko eh, ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko misaal li ma la woon diig mooy mooy li dox sama diggante jaam ñi ndax ndax mm, mm, sànq lañ woowee la màtt benn sànq rek la te yaa ngi reyaale ñu baree bari dafa am loo xam ni bu ko suñu borom defee mm-hmm. muy balaa am na ci yoo xam ni suñu borom da ciy dogu am yoo xam ne da ci dogu mm-hmm. dafa am bu ko wàccee da ciy dogu mm-hmm. am yoo xam bu wàccee du ci dogu bu ci yim dog yim dogu mooy balaa bi nga xam daf ko wàcce te nit ñi nga xam ni nit yàlla lañ am nañ ci moom euh, axe maanaam danañ xam ni lii suñ borom da cee da cee dogu ba duñ ko say ñaan ndax am na ci loo xam mun ko ñaanee mën na leen a may waaye du ko gënal moo tax loolu la ñu xam moo tax duñ ko duñ ko duñ ca dogu ci ñaan ka na nañu ñaan waaye duñ ca dogu am am na yoo xam ne suñ borom da ci da ci da koy wàcce waaye du ci dogu lool loolu bu ci dogu nitu yàlla mën na xam ne suñ suñu borom ci mu ñaan ko rek mu teg lépp am na fi jaar xam ne dañu ko fay tudd rek mu jeex mu jàll yàggut lu mel ne Ebola yàggu fi dafay jaar ak waaye lii dafa daj adduna kap nit ñaa ngi julli di ñaan dégg nga sëñ Muntaxa digle na fi ay sarax jàngalu ay kaamil yu bari te teewul mi ngi fi kon day loo xam ni nañ ko delloo ci suñu borom xam ni suñ borom moo ko fi indi te waxtu ko fi war a jël dina ko jël waaye nag sabablu it dafa munta ñàkk ndax suñ borom moo teg moo teg moo bind àdduna ci sabab mm-hmm. ndax dafa am koo xam ni yonent bi dafa mus a ñëw ci moom indi géléemam ba ci bunt buntu kër gi rek mu bàyyi ko noonu ñëw toog mm-hmm. yonent bi ni ko diw doo yeew sa géléem gee mm-hmm. mu ni ko mu ni ko bàyyi naa ko yàlla ak yonentam su yonent bi ni ko danga nga koy yeew ba nag doo ko bàyyi yàlla ak yonentam kon loolu mooy sabab maanaam nit ki comme lii médecin yi di digle wax naan nañ raxasoog euh, nañ moytu daje yeeg di daan yooyu day ay sabab yoo xam ni euh, dana bokk ci xañ na li ko li ko fiy jëlee ndax suñu borom lu mu lu mu def rek am na lu luy sabab ca wet loo xam ni buñ ko defee loolaay tax mu gën a gaaw waaw waaye daal moom nañ xam ni lu fi suñu borom wàcce la ñu ngi ñaan nag mu jëlee ko fi ndax dafa téye activité nit ñëpp mën nañ ko atte woon ci ñun rek nga xam ni ñaari weer ak yoo xam ne génn ñu dem fenn te nim ñu laalee neen laale ñëpp kon nag di li ñu mooy ñaan suñu borom jëlee ko fi rek Euh, te euh, indiwaat ay xéewal yu yaatu yoo xam ne nit ñi nit ñi danañ fàtte danañ fàtte lépp. sëñ Bàcci xam naa suñu émission daanaka ñu ngi ci cappaandaw gi waaye du ma jeexal tamit te laajuma leen du li nga xam si ne njiit réew mi mi ngi koy séddale ndax yéen jànkat yi tamit yéen a ngi ciy jot waaw Maam waaw loolu euh, bu fekkee ne li gouvernement bi di joxe moom ak segut waaye am na ci nag ñoo xam ni jot nañoo tàmbalee joxe joxe dara. waa def na li ñu war def ndax fa nga xam ne boo àggsee fa la fa la fa war a fa la jaar. na fa ñëpp demee demee nañ fa noonu waaw préfet waaw pour wax ak moom pour pour bu ndimbali ñëwee ñu jot ci comme nit ndax ñun ay citoyen leen comme nit ñëpp tey comme li yàlla dogal yàlla dogal mooy li ñu joxe moom ni ko nit ñi ñëpp amee accès ni leen ko ci amee kon fépp kon kon fu mu war jaar rek war nañ faa war nañ faa lu ci waay am lu ci waay war a jot nga jot ko ci te am na ñoo xam ne tey ay ñu ngi ñu nga wóoyoo naan ay murid lañ tey ji bu ab ministère de way fee mën nañoo taxaw baatare ko un wala boog ñu séqam loo xam ne mbiru biir la yoo xam ne kenn ko yëg loolu bu buñ ko defoon kenn ku nekk boo féetewoon ab jànkat donc sax yow fas yéene liggéey sëñ Tuubaa ci moom te la ah, man de man man de gisuma man gisuma ko sama boobu laa mën a wax ci yaakaar naa ne yaatu na lool ah. waaw kon nag ñi nga xam ne dañ ko def nag dañuy sant ndax sëñ Mundu même sëñ Mundu xaa def na loolu mm-hmm. yëkkati na yëkkati na ay ay ay ab ceeb jox jox ko sëñ Xaadim loolu ndax sax ci digganteem sëñ Xaadim la mm-hmm. ba sëñ Xaadim séddale ko ci ci waaw waaw war nañu gis moo tax ñu am yaakaar ci xañ ne bu fekkee ndax man gisaguma fii Touba kon ni joxagun joxagun nañ la dañ ñi ñëw na waaye séddale tàmbaleegun ko séddale xañ na bis bu ñëwee ñu war ko séddale xañ na lañ ca war a jot suñu wàll danañ ko jot noo delluwaatuñ fan mais nag ñi ngi ñi ñi ngi koy topp waaw comme comme dañ ñu nu agsi na te tàmbaleegun ko séddale te gisagun kenn kon jox ñu ne foofu la jógee dañuy jàpp ne tàmbaleegun ko séddale waaw kon loo lool loolu moom moo war ñëpp tey jii li ma la wax léegi ñii fi nekk ci ay ay ci ci dëkk bi di ay borom wërsëg te ñuy wax ne ay taalibe lañ nañ geesu jànkati xasida yi dëgg la nag sëñ Tuubaa seetaanu leen ndax bu fekkoon ne xañ na sëñ Tuubaa seetaan leen kon kon dana dana dana lool ñi ngi ñi ngi jàng di ter def li waaye nag ndimbal ñi ko soxlul bëriwul ñëpp ko soxla ñëpp a soxla ndimbal kon maa ngi leen di tàll loxo ñu geesu jànkat yi te jàppale leen te xam ni ñi ci ñi ci bànqaas yi liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci ci mbindam mi ci lañ bokk waaw mu nekk kàddu yi am solo yoo xam si ne sëriñ Bàcci Diop daal di koy yëkkati ngir daal di koy déggee noonu waaye sëriñ Bàcci bëgg nañ tamit nga daal di yëkkatiwaatal ci njàngam xasida mi donte nag ñu daal di tëjël jotaay bi hamdi wa sukri li man bi saara luuri danduuna suxtinin da wa sugri li man kulli bi saara luhuuri danduuna suxtin inda sarsaara luhu sanaa'i warilwaani bila siqatin musxaadali min bani daymaanaan zaara lillaahi kulli ladaa abaari makrumatin min hartaalna wa fi haajama man saara ina lasiina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw saara ina lasiina ila sarsaara xat xasadu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 mbooleem ku koy kuy seetaan site bi yëpp ak yéen ñi nga xam ni euh, yéen a yéen a yéen fi nekk di fi liggéey di ko tàmbalee ci yow mi nga xam ni euh, sunu xamee yàgg na lool bokkoon benn dëkkuwaay euh, te lépp rafet kon ñu ngi teg bi ci ci loxo nga jot li ñu personne personnel bi yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa rek yéen ji mu am ci liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na àggal lépp ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ak yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp te siyaar ñëpp di ñaan suñu borom. mbas mii nga xam ni moom moo ko fi wàcce yàlla na ko fi jëlee te wutal fi ay xéewal yoo xam ni ñëpp dañ ci gis seen bopp doole Seexul Xadim ñu ngi siyaar ñëpp tey jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bathie Diop ci dégg ngeen ko ni ñu daal di dikkee ci émission bi ak waxtaan yu yaatu yoo xam seen tamit jot nañ ko fi sekk ci biir jotaay bi question yi dégg ngeen ko tamit ni mu daal di répondre ñu ko ci sant bu baax di ko gërëm di sant ci wuy si nga xam se wuy si nañu ko ci jotaay bi ak yomb nga xam se ne ko yomb ci jotaayu koor gi ak xataay bi nga daal di dagg ay yitteem euh, daal ñuy fekk ci jotaay bi ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant yéen ñi nga xam se ne doon ngeen ñu topp ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen jotaay xam sa waay ci beneen waay jaa ngeen jëf